la population euh, ci euh, euh, très bien bëgg répondre de façon explicite gis nga projet bi mu am ci rew mi ñun duñu ay messi duñu ay malahika baguette magique bo xamni dañuy ñew jël rew mi à ko mhm. rew mi ki koy au bout de 15 ans réew mi mën a commencé jag réew mi dañoo am indépendance mu wàcc tali bi. defar ko à long terme la. à long terme moom laa lay expliquer gis nga oto bu wàccee tali bi jaar ci raara bi. Mm. ràjj ràjj day bari. d'accord wax naa ko sànq Sénégal de 1960 bi mu juddoo am indépendance mm-hmm. au lieu mu nekk une nation benn société une république mm. am benn programme socio-culturel économique éducative ñu encadré ko mu am ay garde-fou sénégalais bu juddoo ci biir réew mi ak foo mënti nekk ñu jox ñu def li ñuy wooye égalité des chances xam nga comprendre nga li may expliquer maanaam ñu am une éducation forte ku juddoo ci réew mi ak foo mënti juddoo ñu programmer la ci lu amal njariñ ci Sénégal foofu la réew mi war a mën a jaare ba am ay nit yoo xam ne dañuy apte nekk des vrais citoyens des vrais patriotes ànd ak seen conscience ba nga xam ne dañuy jomb lu nité di kenn ku ne bu defaree boppam defar xelam defar biir këram defar mbedd mi bu lawee bu dajalee lépp day defaru société noonu lañ koy tabaxee moom laa lay expliquer ñii xamuñu ko mënuñu ko ñun bu ñu ñëwee fi ñu njëkk a tàmbalee mooy loolu mel man rek maa koy wax ci réew mi ma réew rek ko koy wax képp ku juddoo ci biir réew mi ak foo juddoo ci biir Sénégal di nga dem jàngi lu amal njariñ réew mi nga juddoo Touba Mbacké nga juddoo Madina Gounass nga juddoo Fouta ak tiwaawon wala kaolak laa yemale foo mënti juddoo ci réew mi nguurug Sénégal réew mi say waajur ñoo la jur mais moo la moom dalay fuqati dem yóbbu la nga jàng ñu def ci sam xel tabax ci yow lu amal njariñ réew mi mm-hmm. su nekkee ci yow nekk ci xale yi nga juddoondool ci même at mi ñooñu bu ñu màggee bokk génération bu ñu amee doole mën a injecter le sens de leur existence sur le développement de leur pays mm-hmm. njariñ li day lawandoo mais li am nii li ëpp ci askan bi pombiteer bu nëb la ci saag bi fii ak fukki at ba ñaar fukki at ku ko bëgg a régler ci nga ko mën a régler mais kenn mun la ñëw ni tey tey tey mbir mi dina changer. mais mieux dinañu jéem a orienté sénégalais yi ci loo xam ne nag dañuy amal njariñ ana. déglu baax li ma lay wax parce que danga maa laal ndax boo laalee ma réew rek laal ma ana ñun ñoo am problème mu yu am gaz bu doy ñun ñoo am problème am hôpitaux yu am. matelas yu doy ay lii yu mat. problème oxygène euh, récemment. rek problème oxygène bi passé mhm. ñun ñoo am hôpitaux am problème dialyse ñun ñoo am ay hôpitaux am problème mu opération chirurgicale qui euh, euh, par césarienne ñun avons am problème am ay couveuse antibactérienne pour moi, les prématurés yi nga xam dañuy judd ci 6 à 7 mois ba finir les prématurés on a sur 1000 naissances on a 225 décès avant un an des prématurés. En France, au moment où je te parle sur les prématurés, sur 1000 naissances, il y a trois morts. C'est le même Dieu qui est dans, dans, dans, tous les deux pays. Comment Dieu dit si tue nos bébés et il ne tue pas les bébés qui sont en France ou en Allemagne Mon là, expliquer. Non, développement personnel là, <laughs> Madame, capital humain. Il faudrait que les gens, les gens, nous sen xel yi ba ñu nek ay Malgré éducation bi mais ce sont les mêmes monothéistes du Sénégal.

Espagnol yi di ñu nax ñu tok di crêper les chignons et on n'ose pas dire la vérité et ñun ñoy sonni ci nax yi ñu nax mais ñun ñoy ci glorifier wu ba ku génné ci ñun mel man so ñewon tay bëgg leen jubanti dañ lay tam dem mais heureusement Bama Bama paré pour nek ko naa Shaytané, seytaane naa représentant iblis na nek kuy xex diine na nek kuy xex christianisme mais xam nga lan ma dul luñ ma dul jiñ du du ko bëgg réewam dina wax lu naqari nit ci réew mi mais duma wax lu nit di dindi ci réew mi te lépp lu ma wax ku tëdd tëdd ak sa njegenaay boo ko xalaatee di nga xam ni moom mooy ñun nit ku ñuul rawatina Sénégal yi ñoo parewul pour defar suñu réew loolooy dëgg ma réew nag loolu mooy objectif am ñëw teg mbir mi ci table ji ni leen hey lii ak lii ak lii ak lii neexuñu ñemewuñ koo laal il est interdit de penser dans ce pays ici la réflexion est un péché ici au Sénégal les gens sont dans un bulle dañoo dugal nit ñi ci benn bulle mm-hmm. il y a plusieurs fragmentations de lobbying la plupart c'est des lobbies religieux ñu jël sénégalais yi def leen ay zombie hypnotiser leen escorter leen seen cerveau yi def leen def leen def leen ay rabi àll c'est ça la vérité il faut éradiquer tous ces fléaux là d'abord je ngay mën ci ray mhm. c'est ça la vérité alors pour euh, revenir euh, un tout petit peu sur la question de la réduction euh, du coût de la vie à cher ndax japp nga ni la question de la souveraineté alimentaire bi nga avez évoquée. ñing koy évoquer un début de solution pour jafé jafé yi nga À ni askan wi ñing koy jankontel ci gu cher la question de la souveraineté alimentaire manam Sénégal dootul am ci histoire occasion ak projet bu gëna fiable Xelkom jaaga Xelkom 50 000 hectares la état du Sénégal jël jox ko Serigne Saliou Mbacké Khadim rasoul di sama yaakaaru tay ak muy la seule unique personne sénégalaise qui a ne capacité de ci réunir tous les citoyens sénégalais quelle que soit obédience confondue au temps de Serigne Saliou bi mu wootee Xelkom y avait de des catholiques yoo xam ne doon takk ay pot di dem ca gor ba man 89 daje naa fa ak ay ay catholiques. sénégalais yëpp jóg porteel seen bopp projet bi. nga xam ne dafa bëggoon ñu injecté suñu doole ci réew mi pour benn délai mën a génn ci précarité wu am lu ñu lekk état def ci la ca war sénégalais yi wuy ko yàlla dogal yàlla mi yàlla mi mi borom jël Serigne Saliou xëcc ko yóbbu ko ca wetam mais bi mu demee bàyyi fi ay tout tànk ñun ñi fi des fan la mujjee. kharas ni dalli fa dem c'est-à-dire ñun ñoo parewul parce que fi man nga tambali ben mbir pour mu dem pour mu amal jarign société bi mais boko woné gannaaw ñay nek ci sa gannaaw est-ce que dinañ am yene jiñ ci am est-ce que duñ ko bëgg jël aaki ko def ko sen pac pac par donc lolu débat la mm-hmm. motax mané la am autosuffisance alimentaire mm-hmm. en riz et en gerte en pepp en ñebbe mënuñu ko am parce que on n'est pas prêt pour ça on n'est pas prêt il faut éduquer les gens il y a un système éducatif traditionnel dans ce pays qui ne fait que ronger le cerveau des Sénégalais et les soucer, comme les presser comme des citrons. C'est ça la vérité. Il faut orienter ces gens vers un souvisme. Si nous

Sénégal bi ne lépp euh, travaux la wala opération dañ koy suspendre euh, ci euh, diirub le temps que ñu càmbar saytu xool ñi nga xamantene ni ñoo fa am ci bu jaarul yoon ak yi affaire suspension construction yi littoral bi dafa am benn bu am parce que dañoo jóg rek ñu dal comme dig nañu mi dañuy dund bi ko il faut ñu ñu ci loxo mais dina am ñu ci bëgg bëgg def jëf ju ñaaw te loolu maa ngi xëcc yi nopp le chef de l'État j'attire l'attention au chef de l'État le président Bassirou Diakhar Diomaye Faye mu il faut qu'il fasse très attention il y a des gens yoo xam ni dañoo ñëw pour laqatu ci seen ginnaaw pour jindi ci ay règlement de compte dañ woon dañuy arrêté chantier yi ci réew mi nangu problème mu suuf tegaat nañ ko ci ginnaaw bëgg a jël affaire littoral bi hmm. ni dañ koy saytu fii ak deux mois damay bañ ñu def ni Macky Sall defoon bi mu jëlee nguur gi ni day def traque des biens mal acquis def ab liste su fanweeri nit ak lu topp cuqati ca mennum Karim Wade ak ñaari nit ñu mu ko taftalee pour dési pour pour affaire ba nice lool laa gëm ni moo nar a am fii fii boo bëggee dëgg-dëgg y a des hommes yoo xam ne yaa a des man hommes daffaire yoo xam ne dañoo ànd ak régime bi ñëw d'ailleurs régime bu fi ma a nekk dañoo ànd ak ñoom mais dañoo bëgg a làqatu ci ginnaaw régime bi fi ñëw comme xam nañu ay xale lañ pour def ay réglement de compte parce que fi jaaroon ay nit ñu mat lañ seen yeneen moroom yi homme d'affaires dañoo am lu ñu bëggoon a teg ci seen kaw munta woon a jàll damay lim damay citer en l'occurrence Pierre Goudiaby Atepa nga xam ni moo génn joxe information wu affaire u arrêt chantier ci réew mi fii Pierre Goudiaby Atepa man je ko ne depuis le Tchad Tchad laa ko xamee muy tabax benn place de la nation am fa bureau bureau mi ngi nekkoon ci hôtel bu ñuy wax Kempinski ma xam na mu mujjee président bi ma xam ko ca Guinée équatoriale ca benn ville futuriste bu ñuy tabax Guinée équatoriale ñu koy wax Bata ma gis na mu mujjee Théodoro Obiangama xam Angola benn nouvelle ville bu ñu doon construire sur extrême est de Luanda xam ko nu mu mujjee ak jo Santos même Pierre Goudiaby Atepa boobu laa fekk dans les paradis fiscaux au Panama Pierre Goudiaby Atepa boobu noonu moo ñëw fii Sénégal bëgg a teg ay nit ci ordre boo ñëwee ci affaire littoral bi dama ne moo joxe Sea Plaza gii joxe Radisson joxe joxe joxe Azalai Hotel monument de la Renaissance moo tabax depuis plus de 20 ans lépp lu ñu joxe ci chantier ci littoral bi mom moko tabax mieux mu am projet bu mag parce que sénégalais la amna ci droit wu ben benn cimenterie ci réew en collaboration ak ben milliardaire aussi bo xamni ñom ñaar ñoo bëgg and def projet boobu mais buñu ñu buñu jaar ci ginnaw xalé yi pour bëgg gakkal yenen yeneen commerçant ak homme d'affaires yu nekk ci réew fi man njortu naa ni am ñu ñu singil ñoo xamni ni bëgg nañoo segg bëgg nangu seen alal amna ci ñoo xamni ni un an ci ginnaw ci jamonoy Ablaye Wade amoon nañ ci problème mu suuf ay moroomu am d'affaire ci biir réew mi. bi ñu tribunal ñu gagné ko ba ci Aby mu ndaw mi rek bëggon nañu nangul lim yor di ko karkaral bi ñu demee tribunal ñu gagné ko bu mu laqatu ci ginnaw président de la république pour def ay règlement de compte ci affaire littoral bi té li ci dess reste à venir parce que li ma ci wax ni lu toll ni tarfatal ay nin li ma ci xam ah oui waaw buñu avancer ci dossier dina li ci ñëwul bu baaxa baaxa baaxa baax <laughs> alors euh, amis internautes je rappelle que yéen a ngi ci seen émission à Kaddu à Diaspora.